waaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bu ñu santee yàlla buur bi nga xam ne moonu sàkk di julli ci ab yonanteem di sant Serigne Touba bu baax sant Cheikh Aliou mi nga xam ni tey bis bii bokk na ci ay bisam di sant it waa kër Serigne Aliou gépp te ñaanal ñépp nag di ko tàmbalee ci xalifa bi di sëriñ Ibrahima ture moom Cheikh yi ture ñu ngi koy ñaanal ak yàgg fi lool ak mbooleem lépp lu topp ci moom rek muy góor muy jigéen muy mag di ndaw di santit Cheikh Basirou mi nga xam ni moo fi nekkal sëñ Ndaam Touré ci pàkk bi ñu ñëw tey di sant sëñ Mor mi nga xam ni bis bi ginnaaw bu yàlla wéyee ma mën nañoo wax ne bisam la moom moo ko taxawal waaw ah, te taxawal gerte nag da koo teg maanaam ci fànn bu leer nañ ñi ndax lislaam rek lay dundal waaw ah, ndax doomu nit ku baax moom buy dundal lislaam sant ko rek moo war ah, kon sëriñ Mor ñoo ngi koy ñaanal bu baax yàlla saa borom yàggal ab taxawaayam yàlla na ko yàgg man yàlla na ko yàgg def ci barke maamam Cheikh Aliou Touré ñoo ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal nag ñoo ngi maanaam ba Touré ànd ak eh, Serigne Cheikh Sidi mi ak Cheikh Basirou moom Serigne Cheikh Touré ñu fekk fi sunu doom ju baax ji di Serigne Basirou moom Serigne Ñomre am feggoog nag eh, man sëñ bi Mbàkke nga xam ne ñoom ay kilifa lañ di seeti Serigne Touba. Eh, bis bii nag lañ ci daan wax rek lañ ci wax sëñ Mor sëñ Mor bis bi daane ci bopp bi di ko def waaye bis bi mën nañ ne bisu yoon mu gépp ndax bis boo xam ne danga woote ñu laaj la lan ngay woote. nga ne damay màggal ñu ne la koy màggalal nga ne mbooleem ñu nekkoon ci keppaaru sëriñ Tuubaa ku sëriñ bi defar rek muy cheikh yi nga ne sëriñ bi leen defar ba noppi ci ñoom ñooñu laa dajale jeen màggal loolu day yaakaar naa ne bu doon kuy diir mën nañ ne jam na ndax màggal goo fi dégg fii màggal la goo xamante ne dañ ko defal dañ ko dañoo daje di ko defal kenn nag nit koo xamante ne sëriñ bi moo ko gërëm bis boo xam ne daa daje woon ak moom wala bis boo xam ne da caa defoon nangam nangam nangam ñu koy bi nag moom nag bis bii mu def nag day mel ne kon moom mboolem ñoom ñëpp ñu daan daje yéen màggal barab sàngama barab sàngama dafa mel ne bis yooyu yëpp la boole di ko def kon bu ci tànnoon menn mag rek ne Cheikh Aliou Touré laay wooteel bis mu doy sëkk muy bis boo xam ne maanaam lañ fay jàng ci ak jàng ko ci xasida mën naa yor addina bépp waxuma laag nag léegi nag mu jël bis boo xam ne dafa wax ne mboolee mag ñi àndoona Serigne Touba ñoom laa dajale ji yéen yéen màggal moom de lañ ko waxoon rek la ñuy waxaat kon moom am kon yoonu murid yëpp mën nañ ne ameel nañ ko bor bor biñ ko ameel nag mooy kum dajeel ci yoon yi mu ne ko yaay kan mu ne ko Serigne Touba defar sama maam bu ko joxee loxo mën na ne ko defal naa sama maam ne defuloo ko sama maam loola mooy rek mooy maa ngi wàccal sama maam bis kon bis bii képp koo xam ne da nekkoon ci keppaaru Serigne Touba taal ba nga yor tey ji muy tàkk matt ga nga ga nga xam ne moo taal sab taal nga xembee ko ci biir taalu sëriñ bi naa la leer ne tey ji bis bii sëñ Mor wooteel naa la bis boo xam ne defal na ko sa defal sa maam bis boo xam ne yow ameel nga ko bor boo xam ne kon mënoo koo fay ñooñu muy jëfal ñooñu muy jëfal nag ñoom amu ñemewuñ bor dañoo am fay ndax ñoom sëñ bi moo noppi ci ñoom te moo moo leen lam leen lam leen waxoon kan mooy saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine mooy mag ñooñu ànd mag ñooñu àndoon ak moom kon nag mag ñooñu moom day dalay dalay dalay dalay wóor ne mënees naa dàkk sëñ bi fu ne waaye ku ko dàkk ci na nag am ko ci ndax ñooñu sëñ sëñ bi moo noppi ñoom defal leen lim def ñoom ku leen ku leen ku leen ku leen def safaan ba na leen sëriñ bi nga ko def te sëriñ bi nag moo xam ne biraasu man baarisa nii yu baarisul mun tax ni baarisa man ku dugg ci ay suñu borom tabaaraka wa taala ngay bëreel waaye ñooñu itam ku leen defal lu baax aw yiwu wala lu mën a doon ci ci ba ci lu baax naa leen sëriñ bi nga jëfal sëriñ bi nag moom ku ko jëfal loo ku ko defal loo man mu fayal loo mënut ku ko defal loo mën mu fayal loo jomb kon nag daal bis bii na ko ñëpp jàppee noonu kenn bañee kon sañ mor bis bii dafa baax di ko yëgle rek waaye bu ko defoon ci internet bi wala fenn def communiqué ne bis maa ngi ko maa ngi ko woccal ku ko dégg waroo xaar invitation da ngaa war xam ne bis bu kon sa bis la ndax kenn ci mag mag ñooñu rek moo la tënk mag ñooñu maam ci Ibra Faati ci la bokk maam Cheikh Anta ci la bokk sëñ Mëndumbe Mbàkke ca la bokk sëñ Mënu Saa ca la bokk sëñ Masamba Diop Samb ca la bokk Cheikh Ibrahima Sarr ca la bokk Cheikh Aliou ca la bokk ak meneen mag moo fi dégg ndax lu fi waay yor rek ñu ko xemeem sëñ Tuubaa la léegi nag mu ne kon ku sëñ Tuubaa defar ku ne maa ngi lay wootal bis loolu moom kon ku di murit ku ne nan leen bis bii kon moo la tënk ndax boo dem murit génn kër yi benn kon nag sëñ Mor ñoo ngi koy sant bu baax di ko di di ñaan suñu borom dimbale ko gàttana ko ak dimbalam ak tawfeexam ba fa mbeug eggal bis bi yalla na fa egg ta and ko ak sago te luñ ci def day ci ak ngërëmul sëñ Tuubaa at mu ñew dal yalla na doon di wen jërë ngeen def alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi sant bo alaykum wa rahmatullah ma ngi ziar mbokk taalibe yi fi toog ziar sama kilifa gi sama wet Mbàkke ma ngi lay ziar soxna Muslim Mbàkke ma ngi ziar te lu ci yow bu baax tey jéggalu ci kàddu bu baaxa baax di wax alaykum di tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim ci bis bi ñu ñëw muy bisu sëriñ Touba sëñ Maam di ko defal seexu sëriñ Touba yi sëñ Maam Mor di nit ku baax koo xamee ni suñuy mbokk ñooñu boole ak moom waaye bañ xamanteeg moom ba tey rëccuwuma ko ndax ci sëñ Touba lay yëngu ci xaside sëñ Touba lay yëngu lu Serigne Touba sëñ Maam Mor ci. kon ñu ngi koy ñaanal ci bis bi nga xamee ne mi ngi koy defal seex sëriñ Touba yi yàlla na ko ci sëriñ Touba defal lu kawe njottam yàlla na ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim yeggalee ko ci alhamdulilah rabil alamin bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu di leen ziyaar bu baax di ziyaar sëñ Mor borom bis bi moom nag day sëñ wala bu yàgg baax lool te am yitte te ci lu baax rek lañ ko xam te xasida yi laa xamante woon ak moom ay bob ba léegi daal lu baax rek laa xam ci moom ci lu baax rek lay jub kon nag ñu koy ñaanal ci bis bi mu taxawal am na ko ci suñ boroom may ndam kawe kawe njort ci barke Cheikhul Khadim ñuy xam ne mbirum mii nga xam ne moom la sëñ Mor Touré mii woote di mbirum Serigne Touba nga xay Serigne Touba mooy dencal kenn ku ne wàllam ndax lii nga xam ne mu ko wootee de man mag laa waaye maa ngi koy door dégg ku ko wootee noonu ah, damaa deene nag ku ni ñëpp bëgg war nga ni maa bëgg ñëpp war nga ni ñëpp it bëgg nañ ma ndax sëñ bi bi mu ko defee defal ko ñépp ñëpp it dinañ ko ko defal ni muy ñaanale ñëpp ni la ko ñëpp ñaanale noonu de sëñ bi noo ngi ñaan sow fan gudd bal li sëriñ Serigne Touba wi ci yéene lépp suñ borom yeggaleel la ko barke Xaadimu Rasuul sëriñ bi jàpp na mboolem doomu aadama la njëkk a jàpp rawante na nag ñi nga xam ne ñoo bokk lislaam bi rawante na nag mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk tarixa muridiya rawante na bokki boppam ah kon képp koo xam ne yaa ngi def te yàlla tax yàlla moo lay tawul boppam moo lay fajal boppam moo lay defaral boppam ah xam naa ni ma ko waxeen bu njëkk rek mbir moom dañ na ko jox ndigal waaye du suñu man alaahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi mbokki taalibe yi gannaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen sant suñu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndokkeel borom Tuuba ñoo ngi leen di nuyu ci euh, fii ci kër Serigne Dame Abdourahmane Touré moom maam Cheikh Aliou Touré barikàlla ci bés bu màgg boo xam ne Serigne Mamadou Touré borom Tuuba jërëjëf moo koy moo koy taxawu te moo di bisub seexi Serigne Touba yi euh, di ci fàttaliku mboolem mag moo xam ne doon na liggéeyal Serigne bi ba Serigne Touba gërëm ko muy bës boo xam ne bës bu am ay jagle la ndax. mag ñooñi ñu mat a fàttaliku lañ waaye sëñ Mamour Touré mii nga xam ni moo koy taxawee di kenn ci njabootu sëriñ bi di kenn ci ndaw yi nga xam ne yoonu murit am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax ndax euh, ab xam-xamam na ko waaye it euh, bis bii nga ñu taxawal na ko seex yi mu koy defal moom daa bokkaat ci seen biir ndax kenn la ci njabootu seex yooyu ndax moom maam Cheikh Aliou Touré mi nga xam ne moo ko moo ko meññi euh, moo jur sëñ Daam Abdourahman moo jur sëriñ Abdou Samat ci sëñ daam faye sëñ abdou samatum sëñ mag bi moom mooy way juróom mu lëggee sëriñ Tuubaa ba ñu koy dàkkantele borom Tuubaa jërëjëf mu nekk nit koo xam ne it nit ku tabe la ci darajaam nit ku woyof lool ndax sëñ Maam Mor képp kun waxul ni moom nii doo xam ni nii la ndax moom ak taalibe rek te ak taalibe nag day lu am solo loo xam ne lu mat a lu mat a sonn la ndax sëriñ bi daana wax ne fa ma ko jëlee indil leen day jëlee ma fa lu ko gën te wër naa fa ko gën ba tàyyi ak taalibe rek laa xam ne gisuma lu ko gën moo tax ma andil leen ko kon na ngeen ko jàpp te na ngeen ko fonk sëñ Mamour di do di dox ci loolu. di jëmm joo xam ne it euh, ak tabam waxoon naa ko léegi ci ginnaaw moom ku nekk ci ñun ak ñi seetaan ñëpp xam na ni sëñ Mamour Touré ndaw la loo xam ne ndaw lu tab la. tab nag dafa bari ay façon nit ki mën naa tabe ci alalam waaye li gën a jafe ci la tabe mooy xam-xamam ak darajaam ñaar yooyu suñu borom dimbali na ko ci bu baax a baax mu nekk it koo xam ne référence la ci génération bu bees bi nga xam ne ñooy tàmbalee jug ci yoon wi sëñ Mamour Touré borom Touba jërëjëf référence la ci kon bis bi nga xam ne mu ngi koy taxawal ñoo ngi ciy lancé un appel seex yëpp ñu xam ne seen bis la ndax lu ñëpp waroon a def bu ko kenn dee taxaw na seex yi Sëñ Tuubaa yëpp xam ni seen bis la te it war cee bàyyi war xel bu baax kërug seex gu nekk la nga xam ni moom la ca mane bu bis bi jotatee war na koo jël engagement wu boppam participer ko ci bis bi ndax bis bi du bis bu ndaw ndax mboolem koo xam ne mos naa ñaqal Serigne tubaa donte senn saala bis bi yaa ngi ci biir tayit sëñ Tuba moom du ko jug lëggéeyal ko sëñ Tuba ña ko doon lëggéeyal ñëpp ay neef lañ sëñ Tuba moo leen tànn ba xam ne ñii ñoo ko war a gunge ci lëggéeyam bi mm, ñu lëggéeyal ko ñooñu nag mm, fo am murit mën a nekk ci àdduna bi loo am ci sëñ Tuba na nga ko sant seex yooyu ndax bi ñu yóbbu sëñ Tuba ci géej gi de sëñ Tuba bàyyiwu fi jenn doomam ju ko mënal dara ndax booba Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ Fallu ñu mag ci ak njabootam ci daloom njàng lañ toll ndax 88 bi ñu ganee jamono 95 bi sëriñ bi di dem daanaka juróom-ñetti la ñu am booba mag ñi ñoo taxaw woon wooteb sëriñ bi dëkkam yi tamit mag ñi ñoo ko gor dëkk bi mu gën a fonk muy Touba mag ñi ñoo ko gor ci mu njëlbéenu mu wasasin ba àgg ca saxbaan ja muy juróom-ñetti weer wala juróom-ñaari weer yoo xam ne mag ñi ñi ngi goral sëriñ Touba dëkkam bi ñoo gor Daaru Salaam bi mu jugee Mbàkke Kajoor di ñëw di sañc dëkkam bi di Mbàkke Bawol ca këram ga mag ñi la àndaloon ba mu fay jugee it kenn ci mag ñi la jox kër gi muy Cheikh Ahmadou Fa Jamañang Serigne Touba it liirub li mu nekk ci géej gi sëñ Mandumbe mi nga xam ne moo yor addiya yi yor daaray tarbiya ji rakkam la ba pare it di ab taalibeem maam Cerno Ibra Faati mi yor daaray xam-xam ji rakkam la di ab taalibeem sëñ Daam Abdourahmane Lo mi yor daaray alxuraan ji noonu booba mag ñi ku ci ne dëkk ba nga ne lépp loo bay da ko daan indi di ko jox ñu koy dundalee njabootu sëriñ bi kon njaboot googu nga xam ne seex yi sëñ Tuubaa yi ñoo leen taxaw woon bi sëriñ bi nekkee ci géej gi ba ñëw dem ci gànnaar it mag ñi ñoo ko fa doon fekk di ko yóbbul seen i hadiya sëriñ bi di ci dundal ak njabootam bi sëriñ bi ñëwee tamit diirub li mu nekk Thièyène Jolof mag ñu bëri fa lañ terbiyewoo ba sëriñ Tuubaa ñëwaat njaareem ci 1912 fukki at ak juróom yi sëriñ Tuubaa nekk njaareem yëpp mag ñii rek la amoon kon mag ñoo ñu mat nañoo fàttaliku kon murit ñi war nañoo am référence bu rëy ci mag ñi te it ñu bàyyiwaat leen xel gëstuwaat leen xam ne yoonu murit mënut a ñàkk mag ñi ndax nu yoonu murit mel rek mag ñi ñoo ko ko def bu ko defee kon bisub seex cheikh yëpp ñoo ci war a taxaw waaye taalibe sëñ Tuubaa yëpp war nañ cee taxaw kon ñu taxawandi foofu wasalaamualeykum wa rahmatullah billahi min asheytaan arajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaam ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi nu bokkal jataay bu tedd bi ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di rafetlu bu baax it sëñ bi ci initiative bi ngeen def ci sëriñ bi tay dara gennu ci serigne bi ñu ci sant yalla bu baax nak ci jëm ji ngeen ñuy lo ben témoignage euh, li ci jitu nak faawit ngeureum am ci ngeureum li nak fi mi amé moy jag gi nga xamni suñu borom jaglel nako bis bi mu meuna mu man ko taxawu tayit suñu borom def muy wayam te it mu di jagleem goo xam ni xam naa ni am na fu ko suñ borom dencaloon ñu ci sant yàlla bu baax a baax nag waaye nag daf ko doore ci ay maamam ndax wàccuwaayam mooy Seex Aliou waaye wàccuwaay bi nga xam ni moom la am ci kër maamam it sëriñ daam mu ànd ko ñu ànd ko rakkam yi nga xam ni ñoom la suñ borom dogal ñu ñu fi teew niit ci suñu wet ndax ñoom ñii ñoom ñoo ma bokk lépp kon it wax dëgg témoignage bi li ma ciy wax rek ñoom ñi moom loolu loolu lañ ci bëgg a wax ñu ci sant yàlla bu baax nag ci Serigne Mor ndax Serigne Mor dafa nekk nit ko jag nit ku yàlla baaxal koo xam ne suñu borom def na ko muy ko am yar waaye def ko muy ko ami teggin suñ borom it dimbali ko muy ku géeju ci lépp loo xam ni doomi soxna géeju na ci loola nag li ci ëpp solo rek euh, dara gënu ci yeyar bi ndax sëriñ tubaa daan da daawul wax ku ko jur ku ko yar rek lay wax sëriñ moor am na bi yar am teggin xam-xam bi nga xam ne nag moom la ko suñ borom làmboo ba tax lépp loo xam ni ma nga ca njaboot gi yépp nekk ci loolu ab yar la kon nag ñu ngi ñaan Serigne Touba mi nga xam ni moom moo tax mu sos bés bi ndax képp kuy màggal seexi Serigne Touba yi moom Serigne Touba rek ngay màggal ndax dara génn ci Serigne ndax wane euh, liggéeyu mag ñi moom mooy wane liggéeyu Serigne Touba ndax sëriñ tubaa moom ci mag ñi rek nga ko mën a gis ci mag ñi rek nga mën a gis liggéeyam muy lu rafet nag loo xam ni mbooleem ñoo xam ne mbooleem ñi mu ko bokkal ñëpp ci ànd ànd ak moom nag ñoo ngi ñoo ngi ñaan Serigne Touba mi nga xam ne. moom rek a man tey lépp loo xam ni yootu na ko ci rek Serigne Touba defal ko ci lu kawe njortam ñu ngi sant yàlla bu baax nag it ndax euh, sëñ moor daa am moom ñun wet gum ñu féete tey daanaka képp koo xam ni nekk nga ci njaboot gi rek dangay ngay daa da ngay daal di jàpp ni yow foofu la la féete waaye loolu nag wax dëgg day yar bu matale ndax sëriñ Serigne sëñ Mor am na am na bu yar am nay teggin wax dëgg yàlla xam na ay kilifaam te lépp lu mu lu muy def rek ñaare faaw mu diso jee ki kilifaam te loolu mooy li am solo ndax ñun ñoo bokk waajur te it jàpp ma ni kenn gënan gënan gënante nañ ci suñu biir waaye li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy rawante suñ borom moo ko def ci ñun mooy magante gi nga xam ne loolu mooy dox suñu diggante waaye kenn ku ci nekk cër bu mu la war a jox dala koy jox ba nga jàppe ni yow yaay waajuram te nag ay magam rek lan loolee nag ñun ñëpp ñu ci sant yàlla waaye ñoom ñii tamit ñëpp noonu lan kër sëriñ daam wàccuwaay boobu lan am ndax bi may xamante ak moom 2002 la boobu maa ngi doog a jóge ci daara ji di aw sëriñ xaadim kebe ci kuréelu sëriñ xaadim kebe sax laa ko fekk moom moo fa jiitu te ànd nañ fa man ak moom ànd bu rafet am naa fa ak moom juróomi at yoo xamante ne bii man ak moom guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñoo koy ànd sama kër fanaan fa ba tàyyi sama njaboot ak samay mag ak samay soxna yi mag ñëpp rek xam nañ ko ndax kóllëre guñ am man ak moom légui nak bima démé Dakar, 2007 la jogé fi dem Dakar dem fa di yëngu légui nak limu fa doon yëngu moy affaireu was ak café was baangi ni señ bi défar li moji suñ paré dina len wan ma nga né défar ba pare Lima taxé tax Dakar dag sama yitté yépp du lenn lu dul rek ak am yéné ci bis bi nga xamante ne bii dañ cey ko cheikh Serigne Touba yépp do ñun amuñ ku Cheikh abdourahman Lo ndam da suñ wasila moy suñ yakar te it bokk na ci ñi Serigne Touba seexal kon rafet na jaadu nañu dagg suñu yitte déplacé suñu équipe ñëw fii teewaay bi fi nga xam ne képp ko xamante tene bi teew na fi lu mu fiy xewloo ci wàllu was rek suñ borom baaxee ñu ñu def loxo bi jox ko ko di ci fas nak ak faju aajo ak ay palaas yi palaas yi ak tur yu gën a borom def ci tawféex ci liggéey bi barke fi Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul limo bi mi ngi nii ñi ngay paccal nek ni defar ni was bi ma nga ne defar na ko ba tek ko ba pare dañuy xaar rek waxtu wi jot ñu defar ko ak li war andal àndal sërwi ko mbolo mi di ñaan suñ borom nangul ñu lepp luñ ci def ci ay yëngu ak ay déplacement ak ay ciona suñ borom defal ñu ci tawfiq ñu yag ko fekke kenn baña a manqué. bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu lu bari ñu leen di nuyu ci turu Serigne Ibrahima Touré mi nga xamné moy khalifa Cheikh Ali Touré di la nuyu tam ci turu Cheikh mohammed al bashir mi nga xamne ne borom kër gi ma fi nekkal Serigne dam Touré xana di yëkkati suñu kaddu rek di sant bu baax ci bis bi ci taxaway serigne Mamor bi nga xamne taxaw nako ba taxawal bis bi ak it eh, njabot gi serigne touba gi mu taxawalal bis bi muy Cheikh serigne touba yi ngir ñom mom yaakar na ni kenn ku ne ci mouride war nga leen man taxawalal bis ndax lepp serigne bi rek ñom la kon yakana naa bis bisu taalibe Sëriñ Tuubaa ya, yëpp la waaye rawatina nag njabootu Cheikh Sëriñ Tuubaa yi ana mbokk mu baax mu nuyu fi sàng eh, da xam daa yem ci bis bi mu laaj ma bis ma ko Cheikh Sëriñ Tuubaa yi lañ ciy ñaanal mu naan ma ndax ndax Cheikh Samba Diarra Mbaye ci la ma ko ci la man ma ndax Sëriñ Bay Jaxate ci la ma ko kan mbooleem ñi nga xamoon ko Sëriñ Tuubaa rek ñëpp ci lañ ba ñi nga xam sax jàpp na ne ndax sëriñ moom ba léegi mi ngi seexal waaw ba mi ngi fa ma ngi tegoon sen tank ku fa tek sa tank serigne bi dana defal nam defal mag ña sëriñ moom ku fi dul jóg la kon bis bi ñoo ngi ciy sant yàlla di sante cheikh abdourahman Touré mi serigne Dam di jajeufal tamit serigne mam mi nga xam mo am pas pass bis bi mom itam euh muy ku bax ko xam yaakar na ni li serigne Bachir di wax manam njaboot gi mom kep ku tege ci aw yon rek noppal ngoko yaakar na ni taxawayam rafetna ak defaram tamit manam fa nek ma nga fa kon melni ni ni eh, kon dañu yëkkati suñu cadeau rek ci turu mbolam sët suñu dam turé yi ñukay koy amal ak cant bu baax diko ñaanal ñaanal ay magam di ñaanal ay rakam ta xamni ni yoon jaar fofu rek la ala ci am solo moy ñaan ak suñu tuba defal ko fan wu gudd defal ko ak wër defal ko njabootu Sëriñ Tuubaa gep sante bu baax sa bokki ñi fi ñew ak ñi amone yene ñew yep ñu ngi leen sante bu baax di leen gërëm di leen ñaanal baax ñu fekk fa déwén yu bëree bëri